nga nit amul njëg. Mhm. au plan matériel et financier loo mënta def ci nit ki ba mu faatu nit ku faatu c'est irremplaçable amul beneen solution xanaa nga gëm yàlla nga gëm yàlla. Mhm. nga pardonné mais doo fàtte. mais beneen élément bi concomitamment la justice fera son travail. comment ça que... malgré l'amnistie. non ban amnistie lu ñu wax amnistie. amnistie bi ñu voté assemblée. Mhm. boobu fantaisie la du amnistie lu ñuy wax amnistie. dafa fekk nga identifier un coupable nga condamné ko nga soog ko pardonné. loolu la mais amnistie boo xam ne y' a pas eu de d' enquête. y' a rien eu personne n'est condamné personne ne yow noo mun a amnistier koo xamul. Mhm. je pose une question de bon sens. Mhm. sa téléphone. xam loo kan la nga ne amnistier naa la koo amnistier tu as amnistié l' mhm. abstrait. ça donc on peut revenir on peut revenir on doit on doit exigence. du question une exigence on doit revenir c'est une la yow. yaa ngi nii nii. j'ai bien compris li nga wax sa mm-hmm. téléphone réer na xamoo ko ko jël nga ne da ko amnistier mais dañ lay reetaan. Mm-hmm. koo amnistier xaw ma ko. xaw ma ko ça n'a pas de sens pour te dire que fii Sénégal les gens ont joué trop avec les mots. Mm-hmm. et c'est l'heure de clarifier certains mots pour nga wone carrément ni impertinence weesu loolu. Ah, non amnistier koo xamul léegi.